mu jaaxal ñu bëree bëri ndax ci anam yi nga xam ne moom la jot a amee waaye tam rawatina ci waxtu yi nga xamante ni la mbir mi ni mel daal di juddu mu di ñenn ñi nga xamante ni daa nekk ci diwaanu Thiaroye-sur-Mer dimb mu di ab xibaar bu bette waaye métti lool ci ñenn ci askanu Sénégal yi nga xam ne jot nañ ko digg wala moo toog ci seeni ay nopp. la ko waral mooy que ni ab famille ñaar ñoo xam ne ñu fës lañu daal di ñàkk seen bakkan ci anam yu doy waar ginnaaw bu ab gaal di rek maanaam réer mër wala sax nag suux li nga xam ne moo di ci biir géej gi. mooy day ginnaaw bi nga xamante ni daanaka bu ñu sukkandiku ci kàddu yu l'observateur daal di fësal ab pirogue boo xamante ni daal dina largué li nga xam ne moo di maaram ginnaaw bu yoon bu njëkk bitub alxames fukki xamante ni moo di ci aljuma ji la ñu daal di rek delluwaat ngir daal di xoolaat ab doxalin tukki ci li nga xamante ni moo di ci boobule gaal waaye furaas daal di xëddin ba léegi lenn loo xam ne daal dina jib moo di ay njaaxate ak ay njàqare mu di njàqare yoo xamante ni daat na fësal waaye indi lu bare bari li nga xam xamante moo di ab jiwalu tukki ci wàllu wi ni tax ban taxawalin la ñu waroon mën a am ba ñi nga xam ne ñoo féete woon ci boobule géej wala ñi nga xam ne ñoo dal dem rek mën a mucc mu mel ni ab famille baay ak doomam ñoo daal di rek ñàkk seen bakkan wala rek daal di réer mëral ci li nga xam ne moo dee ci biir géej gi ba ndégéen yi kenn mënu laa wax seen tolluwaay fan la ak fan la ñu nekk moo ne daal ay seet yu bëree bëri moom la ñu daal di fëgg mën moo di ay recherche yi ngi rek dellu si waat ci li nga xamante ni moo di file ci waaxi Sénégal yi bokk na ci diwaanu Soumbédioune Wakaam waaye noonu la ñu daal di rek dal ci ab gaal goo xamante ni dafa daal di rek xaaj maanaam faq daal di damm ñaar ndoole yi ak moteur yoo xam ne jot nañ ko gis mu endommagé wu ak ay filets de pêche yoo xamante ni jot naa fës ci li ñu jëmmal ci li nga xam ne moo di ci waaxu yenn ci Sénégal yi ba ci di indi rek maanaam ni di fësal ndax ñaar ñooñu lay ñàkk seen ci li nga xam ne moo di ci géej gi ci mujj doon daal daal di découvrir ay corps sans ni moom la ñu daal di am mu di ko dalee dekk fës mël daal di wane ñaar ñoo xamante jot nañoo ñàkk seen bakkan lépp ndax bokkul ci gaal googu li nga xam ne moom lañu doon di découvrir li ni mel nag dal di coïncider ak ci moment boo xamante ni njàqare ak tiitaange bu mat sëkk dal dina am ci wàll wii moo di daanaka géej gi ñu jàpp ni lépp lu mu doon ñoqati ci wàllum koom ngir rek bëral ko ci gafaka Sénégal dafa mujjee daal di wàññi bu baax baax waaye am ab coppatin bu mag sëkk boo xam ne daal dina ci juddu la a mën a di doxalin bi moom la ci l'état bu Sénégal fas yéene amal waaye tam ñi nga xam ne ñooy ay mool di dem ci géej yi lan moo war a mën a nekk seen ëllëg ci njàqare yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci xayma bi nga xam ne jot nañoo gis sax ñu daal daanaka maanaam téeméeri teg ñeent fukk ci ay pêcheurs at bu nekk daañu réer wala ñenn ci ñoom daal di ñàkk seen bakkan ci li nga xam ne moo di ci biir géej gi lan ma war a nekk tey taxawaayu l'état bu Sénégal ci wàllu wi ni mel daal di rek dajale ak li nga xam ne moo di géej gi commencé di tumaranke ñu yëngatu ci wàllum napp gi am ay jafe-jafe ngir gën a yomal li nga xam ne moo di koom gi waaye tamit waxaat bu baax a baax ci doxalin bi nga xam ne ñu bëree bëri ci nappkat di ñu ngi koy ñaawlu mu di xaatim ñi signé lépp daal di tukkee jëm ci wàllum napp gi. Sénégal tey lu jokkee ci wàllu wóole daanaka at mu nekk ñu daal di nemmeeku ne ay nappkat daal ñu ñàkk seen bakkan walla ñu riir ci géej gi ci anam yoo xam ne yu doy waar la lépp daal di tukki amaana ci ñàkku kaaraange bi nga xam ne mu ngi gën rek di fës. feebar bi nga xam ne jotoon na fi am ci li nga xam moo di ci yenn waax yi ci Sénégal indi woon am njàqare gu mat sëkk boobule ak léegi ay weer dong leneen loo xam ne daal dina judduwaat ginnaaw bi ñu nemmeeku ci yenn gox goxaat yi wala ci yenn waax yi ay nit dafa ñàkk seen bakkan loolu mel ni ab tukki nemmeeku bu am file nga xamante ni la ëpp yi di ci diwaanu Ndakaaru rawatina ci ay waaxam yi nekkee ci wetu géej gi.